Jaxate euh, euh, li nga xam ne tey moo faral di euh, yàqante bi weerante bi audio yeeg affaire yooyu audio bi nga xam ne mooy diggante Cheikh Bara Ndiaye ak ki nga xam ne moo jëm ci Ousmane Sonko muy audio boo vraiment ñaaw ñu ciy ñu ciy laaj sa boobu ci ci Sénégalais yi ci wax lu tant que yow lan ci audio tey ñaaw ci ci ci yi. waa xam nga dañoo nekk ci réew moo xam ne technologie bi dafa dox. su ñu bëggee modifier soxnaay de léegi. Mm-hmm. yàqu ko. ci ku am ku ak maanaam koo noonu bu taxawoon di xaar ku yàq soxnaay da bu déglee léegi benn noonu Soxna da am lu mu def Soxna Aida léegi mais moom loolu rek lay xaar moom dégluwu ci ndax Soxna Aida la wala du da li mu ci déglu rek mooy yàlla na tombeek mu doon Soxna Aida wala mu xaw a nuroog moom gis nga bët yàlla ba mu nu koy bindal. ndokk ba mu nu ko réglé ba mu defal nu ko wiri wiri te munoo xool ci ginnaaw ku yor bëti kanam munoo xool munoo teg bëti ci sa ginnaaw te boo gestuwul doo xool ci ginnaaw kon boog nañu doxal ki ne ci yoon wi na tàllal te bay xeer gis nga képp ku la sànni xeeru ginnaaw nga for di ko delloo yow doo yegg fi nga jëm baa mën ngaa faqastalu vision bi foofu la toll ci réew bi dañoo nekk ci réew moo xam ne fi nu toll nii tembe mooy dangay mel ni Wally Seck sama doom ci yor sa juróom-ñaari kilo yu muut saa yoo ci nammee dara woo ko ne ko jàllaleel ma muut ndax ma am muut waaw mut mooy yoon bi day jàllale bag di jàllale oto lépp lay jàllale waaw da ngay dem ca waali mu jox la ci muut gi bu la joxee ci muut gi da nga téye sa muut fu la neex jëm ak moom loolu rek lay dimbali gis nga fi mu ne nii bu dee ku la sànni xeer nga delloo ko ko lu waaye wax fi nga wax ko Ousmane Sonko Baara Ndiaye Ousmane Sonko keneen ak keneen ak keneen fi mu ne nii lu rattax bëgg nañ koo yàq ci réew moom lañ toll fii lu fi rattax nekk laalo dinañ ut kilo suuf ne ko ca pëy pour mu ñagas nangu lu ñu kenn amul koo xam ne ñu ngi lay nangul ci réew mi fi réew mi toll nangu lu ñu kenn nangu lu ñu kenn sutumaak yàlla boo baax boo baaxee rek am nga problème boo baaxee rek yow am nga problème yow na la wóor na ñu ngi lay dëkk dëkkal ñu ngi lay pax-paxal ñu ngi lay kàmb kàmbal Cheikh Bara Ndiaye nag yàlla dafa dogal man moom xamante wuñ waaye xam naa ko ndax daf maa defal taraanga ci bis bi ma ko soxlaa ndax Cheikh Baara daa bàyyi ba ma dem màkk ba ñëw ma woo ko téléphone ut numéro jël ko sama benn doom woo ko ni ko damaa jóge màkka man bis boobu rek laa amoon nag Cheikh Baara ñëw fi teew fi def émission ak 2 ba pare jubal si si man jox ma xaalis bu takku ak ñëw jëmmal ma jëmmam ci loolu mënu ma koo fay jëf daa mën a rëy loolu bis ma demee si ji bayti moom ak sëriñ Fallou Lo gayndel duma leen yam lu yàlla bind ak seex Issa Ndiaye borom jaas ji seen ñett ñetti ñooñu waaye ñuy ñetti référence ci réew mi seex Baara Ndiaye la mu nekk doo ko ci dégg ca lu kenn yabu ko seex Baara Ndiaye laa wax de man maa ko wax seex Baara Ndiaye doggaguma ko ci luñ koy joxoñe baaraamu tuuma mu metti sama xol parce que la ma jëfal laa wax munoon na maa bañ a ñëwal de waaye dafa ñëw ci sama bis Cheikh sànjaay Ndiaye ci aéroport la ma fekk ànd koog man jëf yooyu laa bëgg yu baax xeetu yu baax yooyu teg ci sëñ Fallou Lo gayndeel moom daf maa defali jëf yoo xam ne mënatuma koo fay mënatuma koo dabu sama doom sama xarit sama mbokku taalibe sëñ Fallou gayndeel sëñ Fallou damay dem Makka mu ñëw njëkk ci man ci taraanga ak ñaanal ma saa yu ma amee naqar sama kër su ma geesoo gis sëñ Fallou Lo mu gaare otoom sëñ Fallou Lo su ma ko nee maa ngi ñëw sax man ma bul ñëw maay ñëw dina ma ñaanal ñëw sama kër tàllal samay loxo ñaanal ma ñaan gu mu tibbee ci xolam sëñ Fallou Lo dina ma jox alalam sëñ Fallou Lo dina ma jàppale def na ma jigéen def ma rakk def ma yaay yal na yàlla guddal fanam te xoola ku ñàkk jot la daaray rek a ko ñor barke Seydina Mouhamed kooku doo dégg ci moom lu du jëf lu baax waaye doo dégg ci moom leneen man ay référence samay xam parce que sama deret moo bëgg loolu taalibi sëriñ Saaliw laa